jërëjëf mbokk yi ñoo ngi fi nga xamante ne que mooy garage la Dior seet si ay jàmbaaru fàkk tëdd suñu mbokk chauffeur si ndax ku ne xam ne ni Sénégal jamono yi ñu toll lii di ay accident de la circulation bari na te li ci ñàkk ci ay bakke nit bari na ñu mën a waxtaan ak ñoom ci lan mooy solution yi ak naka lañ ko gisee ak naka la ñu mën a def ba faggu wala boog ba gàttandu lii nga xamante ne que moom mooy accident yi dina dinañu waxtaanee aussi ak ñoom ci li nga xam ne mooy permis à point est-ce que chauffeur si ànd nañ ci wala ànd nañ ci kon ñu ànd ak yéen dugg suñu mbokk chauffeur si euh, bis boo bëggee def boo war a quatre-vingts personnes nga bëgg ko nga bëgg ko dawal diggante fii ak Touba wala nga diggante fii ak Kaolack nga di ko yor du baax quoi il faut nga yor oto yu bees yoo xam ne état bi ñu jàpp si loolu il faut ñu jàpp lañu quoi il faut ñu jàpp lañu parce que soixante-dix personnes boo ko bëggee yor di far ñett ñett téeméer il faut nga njëkkante quoi il faut nga dàqalante te dàqalante bi baaxul quoi moo indi soog soog soog soog yu bëri yi quoi léegi la mooy saafara si yéen saafara si xanaa ah yéen chauffeur yi quoi naka ngeen ko gisee ni moo ko mën a saafara comme solution ah safari di daw ndànk di wàññi lu ñuy daw xanaa loolu kese laa ko gisee de wax dëgg fa yàlla. am na loo xamante ne ay ndogal yàlla am na loo xamante ñàkk dawal bu tey quoi safari yëpp yemuñu tamit quoi waaw soog yi bëri na wax dëgg yàlla moom waaw bon xëy na tam bu si defee ay doo daan yu bëri wala soog yi gën na bëri ci àll bi fii si temps bi tam ñàkk ñàkk yar safari tam bokk na ci quoi benn instant. loolu boo gisee dawal buñ koy dawalee noonu loolu ñoom su oto rek mais du si chauffeur yi du dafa am ñu mën ñu ko mën a yóbbu ak ñu ko mënul yóbbu waaw mais chauffeur àll ba ak chauffeur fii dafa bokkul ñun ñun car rapide kooku si jox bi yëpp mu yóbbu ko te du def dara benn daga. ñun bu ñu jógee fii di dem bu ñu toppee chauffeur àll bi dañoo war a topp si ginnaaw mais bu ñu dee xëccoo moom rek parce que ñoom tracé bi ñoom ñoo ñu koy gën di xam saa su ne waaw loolu moo koy indi. mais li état proposé ne nañu créer ay permis à pointe. est-ce que loolu est-ce que loolu arrangé ah mais est-ce que na dafa tali ba pare na dafa tali ba pare tali su ko defee ba pare moom gars yi nañ ci d'accord quoi mais tali ñoo baaxul quoi da ngay jógee fii wala dem fii ak euh, Tivaouane wala Touba da ngay teg da ngay ba magal wala gam da ngay dégagé ba sonn quoi moo tax permis de poids moom ànd naa si ànduma ci essence yi fi ñu ay sénégalais lañ ñëpp a war a am te teg si essence yi doomu aadama essence yi seen live dafa metti bu ma seen nag permis de poids bi fii lañ koy teg waaw ñu dimbali doomu aadama yi da essence bi permis Guinée boo fayee vingt cinq mille fii fii ngay toog ñu yónnee loo ko fët fët mu ñëw ñun sénégalais yi dañuy passé bay bëgg a dee yenn saa yi am na ñoo xam ne ñu ñàkk ay cent mille cent nangam mille bala ñoo jël seen permis rek ay cent ans lay doon loolu nag bu ma sañoon dañ gën a wax même permis de point bu dee am tamit dañu xoolaat waaw ñuy dawal chauffeur si ak fi ñu amee seen permis ak nu ñuy def ba am ko ak ñaata temps la def ba am seen permis yi. permis en point moom bëri na léegi daanaka boo xoolee toute Europe moom permis en point moo fa nekk léegi. daanaka dégâts boo def ñu wàññi ci benn point bu demee ba point jeex moom ñu éliminer sapeur loolu tam boo xoolee benn instant tamit yoon la quoi. yoon la waaw yoon la moom wax dëgg yàlla moom yoon la moom parce que am na chauffeur yu bëri ci ko tali bi quoi benn instant. permis a point bi état wax ni da ko bëgg a génne yéen ban gis-gis ngeen ci am. waaw bu ñu demee sori tamit n'est-ce ñu passé ñu dañuy bu ñu at mel xam nga permis ba baax na kon kay permis bi baax na. kon permis à point daal jaru ko ci seen xalaat. man moom permis permis moom permis rek la permis moom jërul fee jërul dindi parce que moom permis la parce que liggéey la waaw soog moom bu xasee ba ñëw rek ñëw na nee na kuy liggéey bu moom bu sañoon du yàq. ngeen waxtaan nañu ak gaañ yi ku ci nekk joxe na ci sa xalaat ñenn ci ñoom joxe nañu baaraamu tuuma yenn chauffeur si waa ñenn ñoom aussi tamit jiñ nañ ko oto yi nga xamante ne que baaxul wala li nga xamante ne que mooy tali yi ndax tali yi dëgg-dëgg tamit euh, bu dee da ngay génn. da xam ni que li ci ëpp ci tali ni mu waroon a mel melu ko permis à point bi nag aussi bañuñu ko waaye li ci ëpp ci ñoom amuñu information bi war wala li ci ëpp ci ñoom xamuñu exactement signification permis à point kon lii lañ leen indiloon fi nga xamante ne mooy garage la Lat Dior seen site senego point comme ak seen mbokk Bour